Mark saar juróom mu ne leenati ci dëgg maa ngi leen koy wax am na ñi fi taxaw ñoo xam ne duñu dee te gisuñu nguuru yàlla ñëw ak doole juróom benni fan ginnaaw gi yéesu àndoon na ak Piyeer Saak ak Yowaana muy bu leen ñoom rekk fu wéet ci tund wu kawe lool foofa jëmmam soppeeku ci seen kanam ay yéreem di rayi rayi weex tàll te footkatu àddina mënuleena weexale nii noonu ñu gis yonent yàlla iliyaas ak musa di wax ak yéesu piyeer daldi ne yeesu kilifa gi bëgg nañu ci suñu teew fii nanu defar ñetti mbaar benn yow benn musa ak benn iliyaas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 waaye itam lu tax bind nañu ne doomu nit ki war naa sonn lu bari ñu xeeb ko dëdd ko waaye maa ngi leen di wax ne Ilias ñëw na te def nañu ko la leen neex ni ko mbind mi waxe bi nga xamee ne Yeesu ñëw na ba jege taalibe yi mu gis mbooloo mu bari wër leen te ay xutbakat di werante ak ñoom naka la mbooloo mi gis yéesu ñu waaru daldi daw nuyu ko noonu yéesu laaj leen ci lan ngeen di werante ak ñoom kenn ci mbooloo mi tontu ko ne kilifa gi rab jàpp na sama doom ba luuloo ko saa su ko jàppee daf koy daaneel ci suuf gémmiñ gi di fuur mu yeyu ne jàdd ñaan naa say taalibe ñu dàq ko waaye nuñu ko yeesu ne leen yéen niti jamono jii yéen ñi gëmadi ba kañ laa war a nekk ak yéen ba kañ laa leen war a muñal indil leen ma xale bi ñu indil ko ko bi xale bi gisee yéesu nag rab wi sayloo ko ci saa si mu daanu ci suuf di xalangu gémmiñ giy fuur yeesu laaj baay bi lii kañ la ko dal baay bi ne ko li dale ci nguneem léeg-léeg rab bi bëmax ko ci safara léeg-léeg mu bëmax ko ci ndox ngir rey ko soo ko manee yërëm nu te xettali nu tontu ko nga ni soo ko manee ku gëm man na lépp ci saa si bàyyu xale bi wax ci kaw naan gëm naa dàqal ma sama ngëma ngëmadi yéesu gis nag ne mbooloo maa ngi daw wërsi ko mu daldi gëdd rab wi nag ne ko génnal ci moom yow rab wu luute tëx te bu ko jàppaat wax naa la ko noonu rab wi daldi yuuxu sayloo xale bi génn xale bi ne nemm mel ni ku dee ba tax ñu bari ne dee na waaye yéesu jàpp loxoom jógloo ko xale bi daldi taxaw bi yeesu duggee ci kër gi taalibe laaj ko ci pegg lu tax mënunu ko woon dàq yeesu tontu leen ne yu mel ni yii ñaant yàlla rekk a leen di dàq bi loolu amee ñu jóge fa jaar ci diiwaanu galile yéesu bëggul kenn yëg ko ndaxte muy jàngal taalibe yi ne leen dees na jébbal doomu nit ki ci loxoy nit te dinañu ko rey mu dekk ci ñetti fan waaye taalibe xamuñu lu wax joojuy tekki te ñimuñu ko ko laaj bi nga xamee ni àgg nañu dëkku kaparnayom te dugg ca kër gi yéesu laaj leen ne lu ngeen doon waxante ci yoon wi waaye ñu ne cell ndaxte ñu nga fa doon werante ba xam ku gën a màgg ci ñoom noonu yéesu toog woo fukki taalibe yi ak ñaar ne leen ku bëgg a jiitu na topp ci ginnaaw ñépp te nekk surgaab ñépp bi ko yéesu waxee mu jël xale indi ko ci biir géew gi ba noppi leewu ko naan ku nangu xale bu mel ni bii ci sama tur man mi nga nangu te ku ma nangu du man mi sax nga nangu waaye ki ma yónni bi loolu amee yowaane ne ko kilifa gi danoo gis nit kuy dàq ay rab ci sa tur ñu tere ko ko ndax li mu bokkul ci nun waaye Yeesu tontu ko buleen ko tere ndaxte kenn mënula def kéemaan ci sama tur ba noppi di ma xarab ku nusatul far na ak nun ci dëgg maa ngi leen koy wax koo xam ni kii may na leen kaasu ndox rekk ndax yéen a ngi bokk ci man kirist kooku du ñàkk yoola mukk waaye ku yóbbee bàkkaar kenn ci ñi gën a tuuti ñi ma gëm li gën ci moom moo di ñu takk doj wu rëy ci baatam sànni ko ci géej boo xamee ne sa loxo mu ngi lay yóbbe bàkkaar dagg ko ndaxte ñàkk loxo te tàbbi ci dund gu wóor gi moo gën ci yow nga am ñaari loxo te tàbbi safara su dul fey mukk te bu la sa tànk di yóbbe bàkkaar dagg ko nga lafañ te tàbbi ci dund gu wóor gi moo gën nga am ñaari tànk ñu sànni la ci safara te bu la sa bët di yóbbe bàkkaar luqi ko nga pat te dugg ci nguuru yàlla moo gën ci yow nga am ñaari bët ñu sànni la ci safara foofa sax yi duñu dee mukk te safara sa du fey ñépp safara lañu leen di xorome xorom lu baax la waaye bu sàppee nañ lañu koy delloo cafkaam am leen xorom te ngeen jàmmoo